war ngeen jàng aaye bi ba mën koo tari Pierre tontu leen ne tuub leen seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yeen ñu soob ko ci ndox ci turu Yesu Kirist noonu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu sell mi jëf ya saar ñaar aaya fanweer beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum sóob ci ndox